18 heures day tëj bi ma xadaratul juma bon ma romb ni ah kii guddee naa guddee naa tëj ko wax quoi après ma daal bu connecté wax ne la. fan nu mu tudd. kenn. moom ban genre la non man xaw ma ko nag moom. ah miinante wuñu quoi. li nga gis dafa nuru agression wala. man dama ñëw rek gis ko mu tëdd. mu dëpp quoi. waaw. non waaw parce que gis naa deret ko à côté. mu tëdd noonu quoi. non seetlu ma ko parce que bi ma gisee affaire bi daf ma daf ma daf ma daf ma kii quoi. kon duggoo ko ci biir. non ci biir mais dama taxaw ci biir ma sëpp. ci laa gis affaire bi quoi gis deret yeeg yooyu après si laa daw reculer man tax dama bëggoon daw dugg ci biir. mais ba après grand bi grand alboore sama benn grand bu dëkk fii. ne ma bul dugg. ma ne ko xool dee na wala deewul. xam place yooyu mën a mën noo kii dee na bi commencé na way foofu. bi mu waxee loolu après nag man la reculé. li ñuy wax ni jigéen woon euh, dafa nekkoon en état. waaw loolu loolu dama ko dégg rek. parce que ma ko bu baax. waaw sunu kër lay liggéeyee ma ko ko loué quoi. waaw waaw ñoo ko loué waaw. non yaakaaruma ko nag yaakaaruma ne agression. laa. bon ma fi nekk bariwul quoi waaw. yéen ñu dëkk fii tey lu mel ni amee ci seen kër tey. Hmm. Euh, ban sentiment ngeen am. di ko naqarlu rek parce que lii lii ku ne neex na la doo nit en tant que sénégalais non lii ku ne neex na. en tant que musulman bon. dafa ne nekk na lu ñuy naqarlu quoi. waaw nekk na lu ñuy naqarlu. Oh, te damay faral di wax ni ñun yàlla moo ñu gën a baax on est des musulmans dama ne ñun yàlla moo ñu gën a baax. yàlla moo ñu gën a bëgg doomu adama parce moom moo teral doomu aadama moom su demee ba wax ni ku rey nañ ko rey parce que Sénégal na dafa neex ko wax ñu naan noo droit de l'homme droit de mais avant droit devoir ba pare on se dit la vérité ki dee moom moo perte nañu dimbali ci loolu te état bi aussi dëkk bi fi mu toll nii pour man lii ñun ñoo ko mën a fajal suñu bopp waaw du état du parce que da génn fii dem ci àll bi rek sànq maa ngi maa ngi dégg am ku may dégganteel su mel ni groupe whatsapp nee na Saalum gii boo këfee yëfu jàmbur jakarta yi ñoo lay jàkka ba jàpp la bu la jàppee dañ lay taal parce que lu am loo xamante ni buñ ko buñ ko defoon benn ñaari yoon non même bu jeexul dina wàññeeku même bu jeexul dina wàññeeku état bi nag moo ñu war a dimbali ci loolu dañ lay tooñ nga fayu ñu dal sa am na loo xam ne nag rafetul